cest à dama jàpp ne euh, on a un budget de un euh, quatre milliards neuf cent millions yoo xam ne les deux milliards trois cent millions PACASEN moo ko moo ñu ko jox donc soo enlevé euh, quatre milliards neuf cent millions nga génne ci deux milliards trois cent millions donc dafa mel ne kon dans ce cas là ñun budget bi ñuy wote deux milliards quelque deux milliards quelque quelque la dama gëm ne dama bokk ci ñi gëm ne Touba am na assiette fiscale bu ëpp dix milliards li tax ma di ko wax itam moo di lu simple la euh, dama wax ne jàpp naa ne 200 millions yi nga xam ne moom la ñu réservé pour màggal de Touba màggal de Touba war na am plus de 200 millions euh, parce que màggal na am 500 millions. mais taxaw fii nag en tant que conseiller di wax ne màggal Touba war na am million millions te waxuñu fi ñu koy jëlee itam loolu yaakaar naa du lu normal Touba mën na am 10 milliards. Touba nag li tax muy mën a am 10 milliards mooy il faut d' abord ñu euh, identifier. assiette yi nga xam ne moo moom la ñu war a fayoo euh, fiscalité bi euh, loolu nag li ciy jiitu mooy informer nit ñi suñ informer nit ñi ba pare ñu communiqué ak nit ñi suñ communiquer nit ñi ba pare ak nit ñi bañ comprendre ñu ñu sensibiliser leen suñ leen sensibiliser ba pare ñu recenser leen jamono weesu na foo xam ne nit day ñëw fekk la nga toog mu ne la fay ma sama bor jamono passé na foofu. dañoo war a d' abord su ma li ma la wax nii informer informer communiquer sensibiliser ba pare nag def recensement. assiette bi ci boppam maîtriser wuñ ko on maîtrise par euh, l' assiette l' assiette fiscale de Touba loolu tax pourquoi parce que képp koo xam ne yaa ngi fi tey nekk ci voie publique bi di fi di fi jaay nga di fi ñaw nga di fi loo mën a def loo mën a def rek war ngaa fay. am nañ aussi par exemple euh, le le le le le foncier euh, le foncier fiscal. loolu aussi maîtriser wuñ ko soo boolee par exemple euh, ñi nga xam ne ñu ngi ci voie publique bi ak euh, le foncier bâti et le non et euh, le foncier non bâti war nañoo dépasser largement loolu mais loolu nag dafa laaj investir ci loolu pour mën a jot ci te suñ ci jotee itam ñu dugal ko fu ñu xam mais tant que ñoo ngi def nii fiir la ñuy def mais il faut que ñu identifier nit ñi d'abord kii kii qui fait quoi mais la Sénélec de Touba compte plus ou moins cent quarante cent cinquante mille abonnés ni léegi def ba xam ay abonnés war nañoo mën a xam ba xam suñu asset fiscal ndax léegi ñun patente bi rek lañuy wax patente bi la 40 pour cent yi moom la commune bi moom 60 pour cent état moo ko moom mais dama jàpp ne li fi nekk rek ci li war a fay patente Touba suñ ko fayee te teg ko ci yoon budget bi war na dépasser 5 milliards man loolu laa wax te loolu laa gëm euh, imaginons imaginez-vous tey par exemple à la Touba ñun ñoo ngi ci par exemple tey fi ñu toll nii tey tey tey tey tey ñoo ngi ci euh, euh, cinquante trois mille euh, personnes yoo xam ne nii chaque année dana ñëw à la commune de Touba nekk nit ñoo xam ne dañuy wut ay kayit yu bees kon jàpp naa ne commune de Touba fépp Touba xam nga Touba moom xaalis bi dañ koy for su fekkee def nga li nga war a wax xaalis bu ñuy for moo fi nekk xaalis bu ñuy wut amu fi da ngay sëgg for mais loolu il faut organiser ko que organiser wuñu loolu nag ci jafe-jafe yi lañ nekk mais dama yaakaar ne Euh, màggal Touba tey mbooloo mi ngi fii ñëw mbooloo moom muy ñëw di ñëw màggal Touba tey di jaay si moo xam ku leen mën a jaay seeni place mais dañoo war a fay ay tax mais nañ nañ jàll ci lu gën a sori loolu. mais mais mais dafa bëriwul li ñuy wax itam par exemple euh, taxe minimum fiscal tey soo ñëwee ci kër tey sooy fay impôt looy wax 1200 francs lay fay muy muy ñaari nit. wala 1800 muy muy ñett nit pourtant euh, euh, fiscalité bi waxul loolu dafa wax ne képp ku nekk ci kër gi te am 18 ans ba ba ngay am 60 ans da nga war a fay 600 euh, francs soo duggee ci kër fekk fa 10 personnes kon war nañoo fay 6000 te dañoo dugg ci kër fekk fa personnes au lieu que personnes yaa fay personnes par 600 francs ñooy leen léegi nañ leen fay 1800 francs dem mais tant que ci loolu ambition yi ñu am ci dont 2 milliards 300 millions de euh, euh PACASET. Donc le budget pour Touba, ça devient par exemple 1, 2 milliards quelques, plus les fonds de dotation, les fonds de concours, les fonds, les fonds, les fonds. Donc à la fin, Touba, qu'est-ce que pèse Touba dans le budget Si le budget est 4 milliards 900 millions, les 2 milliards 300 millions sont des PACASET. Les autres, euh, il euh, y a des fonds de concours, il y a des fonds de dotation de l'État. Donc que pèse la fiscalité de Touba dans le budget. Donc vous pensez que les populations de Touba doivent être appelées à mettre la main à la poche pour que la commune puisse récupérer beaucoup d'argent Mais la, la, la, population de Touba est prête parce que la Touba, population de Touba dépense plus d'ADE que le budget de Touba. Mais donc il faut les informer, il faut communiquer avec eux, il faut les sensibiliser, il faut les recenser d'abord. et voir les, les, les assiettes dont on peut, là où on peut prendre l'argent, parce que ya en a de l'argent à gogo à Toba. L'organisation de Magal peut être source de, de, mais les gens qui occupent les, euh, les, voies publiques peuvent être... Mais, mais on n'a pas un problème à Touba. Touba, il de l'argent à gogo. L'impôt euh, Bien sûr, c'est l'impôt minimum fiscal. Chaque fois que vous entrez dans une maison, on vous dit que oh, c'est trois personnes qui payent. Or, chaque personne qui a 18, 18 euh, ans jusqu'à 40 ans doit payer. C'est 160 ans de base. Donc, il faut, que, il faut une information, une communication, une sensibilisation et un recensement. Et tant qu'on qu ne recense pas tout bas pour savoir qui est qui, qui fait quoi, on reste toujours à avoir un budget de 9 milliards pour ne pas recouvrir 1 milliard Merci.